dégguñu Benno Bokk Yaakaar dégguñu leen ñu wax ci coow li yooyu yëpp dafa bëri ay problème politique yu ci laxasu mais li ma la mën a wax mooy que ni euh, pourquoi acharnement bi ci Aliou Sall parce que au même moment xam nga am na fi benn coow bu amoon un exemple ci affaireu ndox Mansour fay ñëpp xam nañ ni. moom moo piloté avant que Serigne Mbaye Thiam di ko remplacer moo piloté affaire ndox mi SDE gagné war a jël ndox mi parce que dañoo def volet technique ñu tànn quatre entreprise ñu ne ñii ñoo ëpp doole pour techniquement ils valable koo ko fi jox baax na mais ñeent yooyu nag dañuy xool kan moo proposé li gën a tuuti euh, prix pour Sénégal bañ see ñàkk xaalis mu nekk SDE SDE gagné mais ñoom Mansour Faye piloté ko proximité bi nga xam ni gis nañ ko entre ñoom ak Suez ñu foqati ko ci loxo SDE jox ko Suez léegi Sénégal parce que cent milliards la am différence entre SDE li mu proposé ak Suez maanaam yow ndox mi dafa gën a cher ci Sénégal que ni bu fekkee dëgg la day wàññeeku par rapport au prix avant mais bu doon SDE dina wàññeeku de cent milliards Suez nag maanaam yokk na teg na ci li SDE waxoon cent milliards. pourtant kenn waxul dara dem nañ sax ba dénoncé fi ay benn yoo xame ni ay camion benn yoo xam ne yóbbul nañ ko Saint-Louis mairie mairie Saint-Louis bi Mansour Faye dirigé te kenn wax si dara nga gis ni affaire bi louche louche trop mais euh, kenn gisul parce que dafa am histoire boo xam ne ñuul nëbb wax ko ñàkk ko wax entre la belle famille et la famille président Macky Sall il est entre le marteau et l'enclume mais justement tey loolu am na accusation yi am na Alioune Sall gars pression bi xawoon na métti tuuti génn na waat jël loxoom teg ci kaamil lan la def ci population bi est-ce que atténué wul un la situation. xam nga euh, yow ak man en tant qu'intellectuel waat bi dëgg la ay jullit lañu mais daanaka daf ñu dul soxal mais xam naa ni c'était un c'était une sortie politique boo xam ne impact bi c'était plutôt. au niveau des population yi nga xamee ni loolu dégg naa sax benn imam benn jumaa boo xam ne man dem naa fa julli mu ne mbokk jullit boo xam ne waat na si kaamil jullit yëpp dañoo war a am pour gëm ko xam nga kon ñooñu waxul ak ñun ñii intellectuels yi kooku ñi muy waxal mooy que ni ñi nga xam ni sénégalais li muy def parce que peut-être mën na wan a dëgg am na ñoo xam ne nag duñu ko mën a gëm li ñuy mën a gëm mooy que ni na nga dem surtout que la constitution sénégalaise ñuy xaar que ni c'est une constitution laïque donc li ñuy xaar mooy kër yi tribunal li nga xam ne moo dem police tribunal xam nga bu doon foofu la yam kon kenn du ko convoqué dik dañu koy gëm mu jeex mais dik dem na fa démb donc li ñuy xaar au delà de waat bi li mu wax ni dëgg donc mu joxe ay document pour wane ni moom il est hors de. def na ay sorties dem dik ainsi de suite mais dañoo constaté buy dem day am genre bu mbaay deuxièmement am na sax ñu constaté leneen ni dafa bàyyi ba jour Sénégal dik la ko convoqué. Hmm. ah loolu loolu dik. ni ko convoqué est-ce que calcule la attention manuma ni sax manuma ni du calcul parce que di nga seetlu di nga seetlu tribunal yu bëri même résultat wala yenn affaire xool parrainage yi résultat dañuy xaar ba minuit une heure du matin journaliste yi doon dem foofu seetlu nañ ko dañuy xaar ba guddi ba nga xam ni amatul en tout cas benn affluence yu demee noonu ñu génne ñu wax la da ngay xool souvent sax euh, tribunal bu ñuy génne benn benn benn prisonnier Karim Wade yëpp a ngi si. dañuy calculer ba nga xam ni du am impact au niveau des populations loolu peut-être mën na nekk au niveau des des sénégalais yi nga xam ni ñu ban a calculer li nga xam noonu lañ ko convoqué mais li ma la man a wax mooy que ni waa population Guédiawaye yi nga xam ne dañoo xalaat ni politique moo laxasu ci ginnaaw mënoo leen a empêcher ñu ne dañuy jàppale seen leader ci loolu. parce que d'autant plus que li tax ma wax ko mooy rapportu euh, enquête BBC bi daf ci am ñaari parti opposition ñaari opposants yoo xam dañu leen dégg ñu wax ci enquête bi. muy Abdoul mbay di Mamadou Lamine Diallo xam nga gisoo si un spécialiste en pétrole bu wax loolu je crois que nit ñi wax lañ si ba pare. le gars qui écoute te ànd ak Aliou Sall na ne mais ñii kon il faut que ma tontu leen parce que c' est pas des spécialistes du pétrole qui ont parlé c' est vrai c' est ministres ak yooyu mais quand même dañoo accusé politiquement ils ont ils sont chefs de parti et ils sont dans l' opposition donc ñoom li ñu wax man en tant que allié de Aliou Sall di ko jàppale nekk administré ak Guédiawaye je vais défendre quand même mon pour montrer que coow politique la tout simplement je crois que loolu wane na li tax ñu mobiliser wu te xam nga booy seetlu en deux mille en en en euh, 2017 la presse def na ci un benn large écho bi président Macky Sall ne Aliou Sall bul nekk ci député yi bul nekk ci liste député Aliou Sall ak ay nitam daan ne Aliou Sall day nekk député par force bi ñu demee ba ci biir bi Aliou Sall ñëwee daal di moom dootul nekk di député day bàyyi ay nitam dañoo mobiliser woon ba sax je crois que dañ ko tere woon mu wax. d'après li nga xam ne loolu la presque bi rapporté woon est-ce que loolu c'est pas loolu la ñu jéem defaat daan ne ko non seulement doo démissionner imposer ko loolu c'est une nouvelle forme boo xam dañ ko gis est-ce que manipulation la ou pas mais en tout cas on a senti une passion dans cette affaire-là par rapport aux administrés pour jox ko benn cachet politique mais fi pour le moment l'intérêt mooy que ni cachet judiciaire bi continuer et le procureur aussi fi ñu koy xaare parce que justice dafa am solo gis nga lu ñu mën a ŋaññ ŋaññ procureur conférence de presse bi nga xam ni il a été très maladroit si beaucoup de déclarations la manière de le dire parce que c'est une affaire solennelle mais lu ñu ŋaññ ŋaññ justice bi Sénégal li ñuy ñaan mooy justice bi di continuer di dëgër en tout cas gën a dëgër parce que bu ñu amatul yaakaar si justice bi rek on est foutu. mais mais est-ce que yow boo ko euh, am na ñu wax ni dossier bi dañ ko war a confier benn juge d'instruction. waaw pour mu gën a. kii tuuti parce que gis nañ ni par exemple euh, procureur il est par exemple par par le ministre ministre bi aussi Macky Sall moo ko coiffé est-ce que yow bokkoo ci yaakaaroon ni dossier bi dañ ko war a confier juge d'instruction. man na nekk loolu nécessairement est-ce que aussi enquête euh, enquête yi nga xam ne mooy gën a dikk ak au niveau de la gendarmerie je crois que affaire rapport IG bi la est-ce que à partir de là bu ñu ko jébalee procureur bi bu fekkee gis na ni poursuite war na mën a am. est-ce que en ce moment du ko jox benn juge d'instruction mu continuer bon je sais pas trop mais nécessairement le procureur moom comme am na nu mu waxee dafa am suspicion boo xam ne ci moom moo tax c'est ça que le le danger le danger mooy que nii Sénégal bu fekkee justice bi euh, taxawatul ak ñeenti tànk wala ñaari tànkam rek il y problème donc le procureur c'est à lui de faire tout pour Sénégalais yi parce que aujourd'hui moom mooy euh, moom mooy garant moom mooy garde des Sceaux wax na ko le journalistes lui ont demandé qu'est-ce qui nous prouve que affaire bi dina dem ko bout mu ne man maay garantie bi moom mooy garantie bi maanaam na def liggéeyam lu mën a demee parce que si on ne croit plus en la justice sénégalaise il y problème parce que man damay jaaxle bu fekkee nit ñi ñi ngi attaqué te dëgg la parce que gis nañu ay cas yu bëri xam nga ñi ngi wax ni fast track la woon bu nekkee xalifa Sall mu gaaw bu fekkee Karim Wade mu gaaw aujourd'hui te yàgg nañoo gis muy Cheikh Oumar Anne ak ñeneen ak ñeneen gisuñu lii occasion la pour réconcilier la justice avec le peuple sénégalais. Euh, xam nga euh, affaire famille warul am incidence si dundu état dundu nation muy frère muy belle famille te xam nga boo gisee souvent <clears throat> ñuy bañ euh, frère président wala mbokkam di dugg si affaire état toujours day am incidence aujourd'hui bu fekkee première dame ak nitam parce que lire nañu information bi. daal di ne dem nañu ba nga xam ni euh, Aliou Sall bi waroon a nekk euh, adjoint directeur général adjoint BAD Banque africaine de développement dañ koo xeex pour mu bañ a dugg dugg foofu. Euh, dem nañu ba nga xam ne dañu ne Malick sekk yaakaar naa nga xam ni famille yu Marème Faye Sall la bokk dafa dem ba nga xam ni dafa dafa agité dafa gën a yokk maanaam huile sur le feu maanaam joxe sax xaalis nit yoo xam ne dañoo continuer xeex bi contre Aliou Sall. bu fekkee dem na ba ñeneen di ko bind te ñoo xam ni kat peut-être gisuñu leen fii Sénégal donc ça veut dire am na ay proportions yoo xam ni garaaw na loolu nag le président Macky Sall moom moo war a sévir parce que ñun falu ñu ñun falu ñu faluñu euh, Marème Faye Sall ñu aussi ay mbokkam ñu également Aliou Sall même si on peut dire que waa géeje Guédiawaay ñoom ñoo ko fal mais président Macky Sall warul mën a bàyyi les histoires de famille daal di am incidence sur la manière de fonctionner de, de ce pays c'est extrêmement grave je crois que benn moment Karim Wade yeggoon na benn niveau boo xam ni moo taxoon ñëpp doon wax tant que ça au niveau de la famille histoire yooyu amul problème mais léegi nag bu histoire bi demee bay toucher le fonctionnement du pays je crois que le président Macky Sall dafa war a sévir dafa war a sévir xam nga wax naa la léegi ay histoire de la belle famille yi nga xamee ni gis nañu ku mel ni Mansour Faye foo xam ni am nañu lu ñu koy accuser kenn waxul gis nga même euh, Adama fay yaa ngi dégg ñu ngi koy accusé kenn waxul Aliou Sall fi mu nekk nii acharnement am na par rapport ak accusation yi ñu koy def président Macky Sall à part benn wax bi ñu si wax waxul il est vrai que démissionné na la ko CDE CDC mais je crois que il faut que le président Macky Sall reprenne les choses en main parce que moom ça entache moom gouvernance am bi nga xam ne juróomi at yi di ñëw parce que mënuñoo mënuñoo attaqué kenn muy belle famille muy kii parce que président Macky Sall moom la Sénégalais yi fal bu fekkee nag amul assez de poigne au niveau de sa famille pour que seeni histoire bañ a am déteindre sur la manière de gérer le pays ça quand même on peut dire que c'est extrêmement